Kouthia amoo maas Kouthia yaa ngi bëggal àdduna tay woo benn yoon Kouthia war naa ni bésu penc duñ la laaj benn yoon Kouthia lépp lu way doon def ba 18 heures Kouthia ay nga ka daw te koo romb ni ko il est 18 heures Kouthia lundi mardi mercredi ba vendredi Kouthia dafay neex ba duñu yàkkam ci sax vendredi Kouthia émission nomba one mooy Kouthia Show Kouthia dina yeete dina yiir jaaraama Kouthia Show Kouthia loo bëgg mu siw fexeel mu jaar Kouthia Show Kouthia dina siw ba jaaxal la foo toll naan show Kouthia sponsor yi dofunu visibilité la ñuy wër Kouthia foo dem ñu fekk la fa yow la ñuy wër Kouthia kilifa diine yëpp yaa leen di reeloo Kouthia ay loolu bu la ko yàlla fayee nga reelool Kouthia kilifa yi ku ci ngoon gi raw di xaar ba guddi Kouthia bàyyi ba xale yi tëju seetaan guddi Kouthia looy publicité bul sonn di wër télé yëpp Kouthia bu ko tegee ca taabul jëm wër àdduna yëpp Kouthia ceebu waalo bii de Kouthia show moo ko siwal Kouthia te pourtant gouvernement bee ko waroon siwal Kouthia kon président gestul groupe Kouthia show Kouthia ñu ngi dox ci émergence groupe Kouthia show Kouthia gis naa ku feebar tëdd jaaree fa jóg Kouthia liggéeyatoo rek ngir groupe Futurs Médias Kouthia et eh, état bu Sénégal war nañ me ubbil média Kouthia yaa maandu gore Kouthia yaa woyof xol Kouthia bëgg nga say mbokk Kouthia buuf nga say njaboot Kouthia loo yor joxe ko Kouthia nitu àjjana nga Kouthia yàllaa ka dogal Kouthia yàllaa la defar Kouthia kenn mënu ci dara Kouthia ku yeboo di la ñaanal Kouthia yàgg fi loolu Kouthia groupe Kouthia show Kouthia war ngeen a bég Kouthia war ngeen a am ndam Kouthia ci Kouthia show Kouthia groupe Kouthia show ca kaw ca kaw ca kaw wooy wooy wooy Euh, kii bi euh, ñoom euh, xaw ma ina bi ah. mati non kii moo baax kii moo jëndal grand yaa jëndal ah yaa jëndal yaa baax ah koo xamante ne si émergence rek lay dox di jubóole ah. joxe yaatal mais gannaaw xam nga laa lay wax bala ñu dëggee. waaw mais Pa Alé Mbaxal bi. Pa Alé Mbaye bëgg Mbaxal. <laughs> eh ñëpp ma koy laaj. kooku mooy Pa ne Pa <laughs> ah, Alé lay réeré wu. <laughs> moom da Pa Alé Mbaye bëgg Mbaxal. ah mu bëgg Kouthia parce que Kouthia bëgg la te Mbaxal a ànd. Pa Alé Pa Alé bëgg Mbaxal. yàlla nga gudd fan fan. yàlla nga gudd fan. ma nga ca yaa ngi Gambie. mu ngi Gambie mu ngi Gambie man maa Gambien la <laughs> ba Aliou naa fa ñëw dégg nga. ah yow Gambien. waa Gambien la. dëgg la Ndiaye. kon xaaral am na lu xew léegi Gambie. biir fay. am na lu xew Gambie léegi euh, euh, euh, kii nu mu tudd Mati laa la de nga baal ma. non Mati Mati dem ko ñu ko defal dafa rëy. Sénégal yëpp yëpp dama naroon juum ne Mati. ah yow ah. bii moom mooy fly waaw bu bu bu bu moofi. nan la tudd. bu moofi la tudd. bu moofi rek bu moofi rek. <laughs> fly fan yi. fly fan yi fly fan yi. waaw Mbaye depuis démba benn ah. waay nee na ma Mbaye xanaa seen ndoxu TFM dafa am parfum ma ko mu ne mbay Mbaye saa yu duggee ci bitig bi génn kenn bu bëgg du génnaat ci bitig bi. waaw ndax xet gu neex ni fooy bàyyi. man daal buntu kër Amadien daal laa romb barki démb waaye ñëpp lii rek lañ may laaj. wax dëgg fa yàlla. yow fu yow daal fu ne nga dem yow. <laughs> dañ maa invité bitig bi nekk Fly Aqua Fly Aqua. waaw Fly Aqua. nag mbay xolal da koy tuuroo ba pare di xeeñ piscine. bu la ba ba pare xet bi dafa neex. man bu bu la bii man mooy sa dafa neex. waaw très bien. xoolal yaaw rek koy jëlee. Eh, eh, bii pour góor la nag. ah bii pour jigéen mais bi pour góor la. waaw pour góor la waaw. mbay Fly Green bii. waaw soo ko tuuroo 45 minutes. foo toog day mel ne chaque instant day génn. waaw mais mbay yaa ngi xëy non mbay xaaral doy na lii mënoo ko defee du baax ci. defal rek defal man man garaawul man c'est comme Fly Passion. du ma sangu kuy tilim ni nga xëy ñu ah, bien. ba yëkkati sa yëkkati say poq. sama poq forox. <laughs> sama poq forox. Eh, mais oui ma. ah maman Ariel. waaw eh. ci suuf. ne ma Kouthia. lay sa day sa maman Ariel. ah ne ma Kouthia mu ne ah mu naa la. waaw xale bu profité fa sax. mais oui ma parce que euh, xaw ma yaataa ku fiir. non xale bu baax la yow. Eh. yaa taa ku fi koo eh, fi. Eh, kooku bàyyi sama moom eh. wuy ma yàq bul yàq turu salon bi. ubbi na salon bu rëy maman. Sénégal yëpp lañ dem leen ci nu mu tudd maman. yaa ku fi ku waa wala yaa ku fiir. wuy ma j'ai tout perdu wuy ma mbay bii romantique la tudd romantique. romantique fly romantique. waaw mbay bii pour jigéen la. waaw fly sensuel bii pour jigéen la. waaw mbay yaa ngi xëñ xun nag parfum bu neex. yaa ngi xasaw xun nag parfum bu neex oh. mbay. rentrée scolaire xale yu ndaw yi. xoolal rentrée scolaire boobal. waaw boobal xale yi sax léegi boobal lañu jàngee wax. très bien boobal rek man luy xale man sama rab yi xale di nekk. très bien xale rek ma comme bu <laughs> rek lay liggéeyal moom xale rek buuba Ndour ah. nee Kouthia xaw ma petit Kouthia day am léegi Kouthia petit Kouthia soo day am. moo ko xam nga petit petit xaw ma def na petit pële. petit théâtre. <laughs> petit. xaw petit Kouthia soo fu la jëm Mbay Madaar Mbay Madaar. Noura ak Zetol. waaw waa Madaar nee nañ kontaan nañ ci promotion bi nga xam ne moom daal vraiment bëgg nañu. di kontaan bu baax a baax a baax. ndax bu ñu jàppee ba tey depuis xaw ma cinq ans. non non non depuis non non ñii ay gor lañu. waaw ay gor lañu waaw. képp koo xam ne. waaw. soppe Kouthia Show nga. waaw del jënd maraas. Eh, eh, eh. ak lii nga xam ne moom mooy. fly waa si bopp non ay partenaires yu sérieux nañu. dañu sérieux barki yàlla bilaay walaay xolal am na ñenn ñoo xamante ni xolal ku leen fi fekk. ñoom nga fi bàyyi. waaw waaw ñun ñu baax lañ. bon oh, gën a xolal. maa ngi euh, yaa ngi nuyu Modou Ndiaye. waaw ban dëkk la ci Italie. waa Italie. ban dëkk. Vigano. vi Vigano Italie la nekk. Vigiano. Vigiano waaw Vigiano waaw. Italie Vigiano Italie. Ñaaña depuis Ndar. waaw Ndar borom Yoff. waaw Fatou Fall borom Yoff Cheikhouna Mbacké. borom mariage le sept. ca benn baraak. xaritu Oration la ñu ngi koy nuyu bu baax. Baye Sall de mooy teer bu mag bi. waaw nag léegi nag. waa Yeta coiffure yëpp. waaw ña nekk ca personnel ba. ndeysaan ñay tresse ak ñay teg greffage ñoom ñëpp mbay dañu laa bëgg nuyu leen. waa Yeta nuyu leen waaw nuyu leen bu baax a baax. très bien waa Yeta Yeta ñoom yaxara ñoom yaxara ñoom afalak ñoom ñëpp ñoom ñëpp foofu ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp. waaye ma ne la ñoom ñëpp fa la nekk ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ñu ñu yaxara très bien voilà très bien mais may may dem. Euh, jantal Mara foo jëm. Euh, dama am benn affaire muy jënd <laughs> jantal Mara. yow booy baax jantal Mara. wuyu ma gis nga orange dina li ko gisee télé bi. Ah. mais soo gisee ngoon doo ko xamee. laa illah day takku di ànd gis nga yow. soo ko tooyee da lay duma de. Ah. ay laa ilaha illallah. xool gis da koy takk ba mu xoolal. Mara. Ah, العباس الكبريت الأحمر والقطب المكتوم والبرسخ المختوم والهمام الأفخم والعيلم العلم أبو الفيض السمداني أحمد بن محمد الكيشاني رضي الله تعالى عنه العباس يضحك ومن بأبي العباس يضحك يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك ca réalisation ba ñu ngi ca ànd ak ka nga xam ne nag moom mooy Alaaji Tonton Mak moo nek ci réalisation ba feggoog ki nga xam ne mooy Fatima Evans ci coordination bi euh, ca son ba ingénieur toog moo fa nekk ñëw nag ci yaawo GV benn jëmm ñaari caméra ñu koy gërëm bu baax ak képp koo xam ne nag yaa ngi ci Télé Futurs Médias équipe technique bi yëpp nag nga xam ne jàpp nañ ñu ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte yi nga xam ne nag ñoo ñu jàppale di waa Fly Sivop bii nag parfum yi nga xam ne moom lañu indi bépp nag boo ci gis rek day wàññi tàngaay ba pare di neexal poxotaan waaye tamit xet gu neex avant après et pendant booy jàll yëpp day neex madaar nag mooy setal kër di ko raxas ba set wicc moo taxit ñoom boobu li ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu gis nañ seen bopp ci ne mooy seen produit biir réew mi ba ci CEDEAO bi yëpp ñu ngi leen di woo ne madaar daal mooy numéro un ci setal ci biir dëkk bi mbokk yi gërëm suñu baay yi nga xam ne wax dëgg mu ñoo tàmmalati ziar ñu leen di Serigne di al amin euh, di ko ñaanal moom tamit fan bu gudd ak wér gu yaram ak suñu papa sëñ Mbaye Sy Mansour porte parole ba ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram ak wëlëram imam Tamsir saako di ko ñaanal jàmm doom ja soxna Umu Kaltum Si ñu ngi koy ñaanal jàmm moom tamit di doomu sëñ Bay Si Mansour nuyu nañ sëñ Abo Mbacke xalif général bu sëñ Fallou Mbacke suñu papa la Cerno Bachir ñu ngi koy ñaanal jàmm ak wér yàlla may ko jàmm bu am solo waaye tamit Alaaji Cerno Sama Sa sama papa ñu ngi koy ziar Alaaji Cerno Madani Muntaga Tall Cerno Bachir Cerno euh, Bokar Alpha ba nekk ca war a fondé Alaaji Cerno Abdourahmane Bari borom Bogal ñu ngi koy nuyu Alaaji Cerno Amdo Haaw Celaaw Alaaji Cerno Nourou Tall Sacré Cœur borom manto bi Serigne Habib Gaye Mouhadamou sëñ Mansour si alaaji Ousmane Ndiaye waaliw Kaamin ak sama yaay ajaratu mam Bousso Cissé ci HLM Angle Mousse euh, alaaji Bassirou Baara Mbàkke nag moom mooy sëriñu Gofal de suñu sëriñ Gofal ca Italie nekkoon ci groupe Kouthia Show mu ngi sëriñ bi yàlla di ñuy tamit Cheikh Adama Niang dëkk ca Passy monseigneur cardinal monseigneur Benjamin Ndiaye ñu ngi koy ñaanal jàmm a cardinal Adrien euh, euh, Théodore Adrien Sarr yàlla ko yàlla may jàmm ci yoonu Yesu Christa bi nga xam ne ci nañu dëkku yàlla may leen xéewal yu bëri ñi nga xam ne ñoo demoon ca pèlerinage ba yàlla yàlla yóbbu ci jàmm indi ci jàmm ci barke Yesu Christa Ah, Serigne Cheikh Tidiane Diaw Cheikh nuyu nañ ko suñu yaay maître Fatima Fall responsable politique yal na ko yàlla may jàmm Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi ak soxnam Adja Kiné si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almakhtum yal na yàlla yokk leeram ci àjjana yu gën a kawe waaye di ñaanal fan bu gudd bu wér Serigne Babacar Abdoul Aziz si ca ñànk idi Cerno Mamadou Adama gay xale bu Cerno Adama Gaye ca ñànk idi yal na yàlla guddal fanam ko bu baax Serigne Atab Aydara nekk ci binaa ko tamit yàlla may ko jàmm Ibrahima Mané porte parole ba yéene nañ ko baax waaye nag suñu baay di baay Cheikh Tidiane Seck xalif général Thiénaba Seckeen ñu ngi koy ñaanal jàmm ak wér yal yàlla dëgëral taxawaayam waaye tamit di nuyu alaaji Cerno Baba Nuuru li xalif bu daare xale bi Cerno euh, Alpha Tidiane li ca cité Biagi kooku surtout alaaji Cerno Alaaji euh, euh, Mamadou Moussa Li la waaye tam ñu nuyu Serigne Fallou Mbacke docteur nekk ca tool yi waxtu bi ñu wax ak yéen ak jëwriñ Moustapha Sène ñu ngi koy nuyu Alaaji Mahamadou euh, Sall xalif bu Dismiha région de Kaffrine departement bu Koungheul ñu ngi koy nuyu Moustapha Sall nag suñu wëllëre la di jàngalekatu alxuraan nekk ca Dimisra ñu ngi koy ñaanal jàmm surtout Alaaji Abibou Sall Waly Kamin sama papa nag di Alaaji Ala Mbay bëgg mbaxal nekk ca Gambi Serekunda maa ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ndax góor gi góor gu am njëriñ la waaliyu kaamil la nitu yàlla ku baax ngi ni alaaji aale mbay yàlla ko yàlla defal jàmm ñu ngi koy ñaanal uh, ak njabootam yëpp waaye njabootu Serigne Ahmadou Baro Jégéen xalif général Serigne Muniru jegen ak imam ba suñu wëlëre la de imam uh, alaaji As Baro Jégéen yàlla ko yàlla defal jàmm ak Serigne uh, daam Jégéen bi barki démb la jógee Màkka soxna Sukayna Ndoy nañ ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm waaye sama papa boobu di Alaaji Cerno Ahmed Tidiane Ba xalif général bu euh, Médina Gounass ñu ngi koy ñaanal jàmm ak doom ja Cerno Aliou Badara Ba yal na yàlla defal jàmm Cerno Aliou Ba war a fonde la dëkk tanum euh, Kolado di nit ku yàlla baaxal di nuyu tamit Cerno Ba nekk ca Daara Jolof euh, Cerno Cukalel nuyu nañ ko am mbég ca contentement bu mag nag bés bi nag mag la boo xam ne sëñ Mbaye Simanso dañ ko ciy ziare di association Moutahabina billaahi section AC bu Paris coordination ba France gàmmu annuel bi nga xam ne sëñ Mbaye Sy Mansour moo ko mës a présider moom dana ànd ak délégation bu am solo ah, alaaji ah, Tamsir Sakho di wóolare sëñ Mbaye Sy Mansour dana ca bokk ak ah, maam Ousmane Sy Habib ah ak toute la famille de Cheikh Seydi Hadj Malick Sy rabiallahu taala anhu conférencier bi nag oustaz Souleymane Ba ak oustaz Ibrahima Dieng ñoo ko fay amal àjjuma le 26 astafurlah le 6 octobre 2017 xadratu juma dana fa am ca espace Venise ca Sarcelles à partie de 18h animation ba Abdoul Aziz Mbaye euh, ak Daawur Góor Mbaye Moustapha Mbaye ak Chérif Mbaye di gàmm bu mag bi nga xam ne mooy am France ak bu nekk gàmm annuel bi nga xam ne sëñ Mbaye Sy moo koy amal association Moutahabina Fillahi yal na yàlla may ñu egg ceeg jàmm ndax sëñ Mbaye Sy Mansour fu mu teg tànkam ci àdduna bi yiw la fay fekk te yiw la fay bàyyi moo tax waa France war ngeen sant yàlla ndax kilifa diine yu mel nii bu ñu ba ci réew boo xam ne réew la xam ne euh, bu waar la ñu fay wàcc def xadara juma tubaab yi ci boppam war nañoo sant jullit yi nga xam ñoo nekk ci Afrique ndax ay sëtu euh, maam Hadj Malick si alaaji euh, euh, suñu papa alaaji Malick Seydi Hadj Malick si suñu maam ay sëtam bu ñu demee ba ci dëkk tubaab yi di fa def xadaru juma loolu yokkute tubaab yooyu la parce que baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu ñu koy wàcc ci dëkk boo xam ne yàlla xam doy na dañoo war a sant kon ñu ngi gërëm bu baax sëñ Bay Si Mansour ci gàmmu googu muy amal mbokk yi dañuy dem nag seeti Yaya Jammeh nee na problème bu yi nga xam ne moo am te Macky Sall na tekk tekkaaral ba léegi waxu ci Sénégal doon basket barki démb ñu ndulli ko ndulli tooy Macky Sall nee na fédération Sénégal bii bu gañewul Afrique du Sud war a qualifiéwul dana tas fédération bi yaay jaame ngay xaqataay nee na moom ci boppam <laughs> Sénégal da ko yéene woon musiba waaye actuellement ni ñu ngi dund jaxal ma ñu dem seeti ki nga xam ne mooy yaay jaame déclaration foofu ci dëkk bi nga xam ne mooy Guinée équatoriale yaay jaame. docteur jaame. babali masa jambe jilanka waaw docteur Abdoul Aziz yaya jambe jambe babali masa jambe jilanka waaw yaya jambe docteur Abdoul Aziz yaya jambe wital nga Gambia docteur Abdoul Aziz Yaya Jammeh baayu Mouhamed Jammeh Jammeh Dianka kooku so maa ngi ko eh, wooykat boobu yal na ko yàlla te nekkoon ci Youssou ah. alaseka moo tete marié xawma leen tete marié ye voilà yos way boobu daf ma way boobu daf ma neex xam nga lu tax mu neex ma Sénégal ah. dañu bëggaati lijanti problème mu jàmbur hey ah. man maa toogoon Gambie ne because du ma fi jóge ñoom ñoo njëkk a taxaw ne dañu ma jox appa su ma génnul si daga bi dinañu jël seen armée because ñu génne ma ci nii wara ci naa hey ñëpp a ñaan ma ma siisu ñëpp a ma siisu ñu nara indi fitna ma dem ndax yaa jaame taal na gambe laay bañ suma yaay sumay raa sumay mboka ñi santa jaame soose yi joola yi man duma lay xañ seen jam hey léegi Macky Sall naka après ose yi affaire jullit yi lu tax léegi ñoom mënuñu woon ay pexe ba fexe yoon ay militaire ñu dem Birma pour lijjanti loolu te ñoom ñu ngi nii di ma ci ay coono ñu ñoo indi ay militaire su ma xam moo leen di daal hey dama ibi journal bi ma ne ma Macky Sall dafa ne Aliou Cissé bu continuer di perte dafa tas fédération na ko def mu wal su ko defee moom FIFA ñoo jàppante xam nga lan soo tooñee nit da nga nangu ne da nga tooñ <laughs> xoolal duñu gagné dara tous nañu dul gagné yow ngay góor ah. may góor bal bu ndaw moo dox suma diggante nga tumbal tumbal tumbal ne ko ci pata sa morom tumbal tumbal ne ko ci pata nga ne hey yow munoo pata xal yeneen ba gañe nga bugg a daxa sa entraîneur dara ñoom ñoo dara hey yéen waa Burkina Faso na ngeen taxaw temba ngeen taxaw ngeen lijanti li Sénégal bu ko dafa yomb de dem di def fu Afrique Sud am na affaire yoo ne bu leen nangu ah. na tànga ci suuf dara sedda yes xoolal nit ki jama may ko jama waa nga ko indil ay toujours da gis ay eh xam nga lan ah. waa biir Mali ah. ñoom seen bi mooy ki nga ne gëmul dara gëmul yàlla gëmul yonent gëmul lislaam gëmul dara kooku dafa amee affaire bagage de soo do watoo ñëwee seen taka bi la ñuy nekk de dañuy jël ay nit yu muutu yuuri dañu lay def loo xam ne su élection ñëwee doo dara képp président bu Dakar boppa na yaa ngi dem Birmanie yaa ngi soga ñooñu war a yaa ngi lay jàppale lay liggéey nag nag Macky Sall li ko de man la ñeme maa ko jege man la ñeme moo tax mu jaga yanga yanga yanga yanga <laughs> ma ñaga suma ndee xam nga lu ne def nañu ma barki de ba ñu man dinaa gën a wax ñu ne man damay umbal waaw ñu ne man damay umbal ñu ne man damay umbal xoolal président bu mel la man ñu yaxa suma der boobu am na luy waaja ñëw biir Mali mu ngi nale seen président seen buur bi moom bi ku dof dof lu ba tanga foofu tanga na daga jaay seytaane ngi li lijanti ñoom élection bu amee sa daga doo gis tos te dañuy waxe dañuy wax daga te yàlla tax journaliste dajale xaalis bi daga boobu pour dugg fa du yomb Bangladesh bi dend ak dëkk bi sax duñu nanga foofu parce que am nañu am na am mënu ko lijanti yee Jammeh is back dinaa dellu suma dëkka Macky Sall li nga war a lijanti ba mu leer naña mooy fexe dem biir mari <laughs> noo gisee gouvernement bi wooy <laughs> xam nga la moo ci manqué. Ah. Amadou doom <laughs> kii nag ñu ngi koy gërëm bu baax Ousseyn Mbaye way bu boobu nga xam ne nag jëmale na way bi mu way nii way na lébu yi waaye tamit euh, suñu papa di ko ñaanal tamit fan bu gën a góor gu yaram waaye am nañ mbégte contentement bu mag fu mu ne nii nag way bi nag képp kuy lébu rek gis na sa bopp ci euh, way bi ñuy gërëm nag bu baax képp ku ànd ak ñun rawatina sponsor yi wax nañ leen tàngaay bi li koy mën a wàññi du ventilateur du climatiseur fly yii nga gis nii romantique passion boobal bi ak euh, Euh, bi nga xam ne mooy euh, vanille bi ak green bi yooy mooy tax sa poqataan féex madaar mooy setal ak ësal li nga xam ne dafa ës si kër gi moo koy dindi ba su cant Cerno Abdourahmane Bari ca Bergamo ñëw na ba pare samedi bii la incha allah euh, Hamdou Aw mu ngi invité daayira Cheikh Omar Tall Fedda Adama Aïcha Bergamo ak Habib Kane ñoom Abou Kane Aliou Ba ñu ngi ca Bergamo le 23 septembre ñëw na samedi bi incha allah Aïssata Sall Aïssata Sall Aminata Gueye ndom ñoom Khady saal vice consul bu Milan ñoom ñëpp ñu leen ciy woo ndax bés la boo xam ne boobu léegi ñu ngi ci jàpp yàlla def na nag samedi ba incha allah ñu ñëpp ñu fekk ko jàmm yàlla may ñu fekk ko jàmm ndax tamit euh, euh, Thierno Abdourahmane Bari nit ku yàlla baax la waaliyu kaamin la bésam moom ku ci jàpp yàlla dana ci defal jàmm moo tax ñuy gërëm Serigne Hadi si xaritu Macky Sall ak euh, ki nga xam ne mooy madame Sari madame Sari nekk ci tubaa kër ñang ñu ngi koy nuyu Pathé Kébé militaire à Camp Leclerc et sa famille au camp Souleymane Badji Amadou Wuri Diouf Soukeyna Bassène bébé Bassène Pape Badji de la part de Thiamas Mbaye Thiam xaritu Horatio électromécanicien euh, ca Yoff suñu soppe la Mamor Thiam depuis daar Daaru Musti suñu xarit la ami de euh, Noa tailleur ca marché Gambie Colobane ñu ngi koy nuyu Mbaye Zal tailleur xaritu Horatio chéri Mame Diarra prépare son mariage le octobre yàlla bu ci ca duggu le benn barak à suivre Badiane Issa Diouf Mati Ndiaye Kiné Ndiaye Mamor Ndiaye ak euh, ñoom ñëpp ñu ngi depuis cité des enseignants ci Guédiawaye Moussa Mbol ak Zal Diouf Ngaru ak euh, les Ngaru Ngaru Diop ak seen ay doom ñoom Mohamed Mamoun euh, Mamoun Yaay Dioum Aliou Diouf depuis waay de la part de Horatio ñi ñëpp ay soppe la ñoo xam ne wax dëgg yàlla boobu léegi ñu ngi déglu te ñu moo tax ñu leen di gërëm di leen sant waaye di am mbégte contentement bu mag tamit euh, ci monsieur Mbaye Ndiaye adjoint au maire de Sokone Ousmane Tigana ñu ngi koy nuyu dëkk ci dëkk bu ñu naan Katambay Katamba Mbaare dëkk yi doy na waar Baba Ndoye maire Ah, di dimbali waa Caaroy Gaar di dimbali tamit ki nga xam ne moom mooy Ami Collé ah, li ci ëpp moom mu ngi koy dimbali bu baax ñu koy nuyu bu baax moom ki nga xam ne moom mooy Ami di nuyu tamit ah, bu baax Mati gay Gueye Caaroy Tali Diallo en face 1 di ko may maamam faatu jaxate ak bint Thiaw ak maam Kumba jaxate ak ñoom Aram Diakhaté ak Baara jaxate ak Ndey Fatou Wadd ak maam Ulli jaxate ñoom ñëpp nag wax dëgg yàlla ah maire bi man rek lay seetaan waaw kay yal ko yàlla defal jàmm may ko ndëgër laay Assane Gaye daaf à la de Djidda Thiaroye Kaw ñu ngi koy nuyu monsieur le maire docteur euh, Cheikh Dieng ak Assane euh, ñu ngi remercier ñëpp euh, di moom tamit bés bi maamam gaañoo di maam Oumy kan de la part de Abi Collé kon mbokk yi nag ñu jàpp rek ne ñu ngi am mbégte ak contanement bu mag tamit bu baax ndax bés bi nga xam ne mooy gàmmu annuel bu association Moutahabina Filahi section AC Paris bi nga xam ne sëñ Mbaye Sy Mansour moo koy présider chaque at ànd ceeg mam Ousmane Sy Habib ak toute la famille de Cheikh Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu bi nag mu ngi am le 6 vendredi 6 octobre waaye nag oustaz Souleymane Ba ak Ibrahima Dieng ñoo koy amal xadaratu juma ba mu ngi am ci espace Venise Sarcelles à partir de 18 animation bu Abdoul Aziz Mbaye Daawur Góor Mbaye Moustapha Mbaye Chérif Mbaye bés bi yal na yàlla may egg ci jàmm ndax sëñ Mbaye Sy Mansour lu mu teewee rek macha allah xam ak ñaan bu am solo moo fay am yal na yàlla may ñu fekk ko jàmm waaye Fatma Diouf madame Fall nekk ca APIX de la part de Sophie ak Amadou Ndoye nekk ca Canada maa ngi koy nuyu Clédor ak gistis Edgar Mendy ñoom ñëpp ñu ngi leen après dina ñëw ci Edgar Mendy bii Fatma Diouf nag madame Fall ci APIX sama xarit la yal na ko yàlla defal jàmm mbokk yi Birmanie bii maanaam xaalis ba dajale nañ ko mais xaalis bi biñ ko dajalee ba pare ñoom Bouga Gueye Dany buñ gisul ku ko yóbbu xaalis day dellu ci caisse de. consignation bii nga xam ne Aliou Sall ko jiite parce que ah waaw oui parce que sénégal yi ñoo joxe seen xaalis de bu ñu gisul ambassadeur bu ko mën a yóbbu war a état Sénégal amul fu mu koy jox xaalis bi du ñu waat nit ñi ñoo jël si ko de dañ koy delloo caisse de consignation bii jox ko ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a yelloo parce que d'accord ay mbokk jullit nañu bu ñu demee mënuñu koo dul euh, yóbbu foofu am na yeneen jullit yoo xam ne xëy na dunduñu naqar boobu waaye ñu ngi dund xiif ak jaaxle ñu delloo leen ko yow jëf ji rafet na trop waaye tamit jéggaane baaxul waaw ñee dañoo sonn jéem nañoo ut ay pexe pour yóbbu leen ko amul xaalis bi buñ ko naree delloo caisse de consignation bi nañ ko yóbbu ci àll bi jox ko ñi nga xam ne war nañu bari na ci réew mi kon ñu seeti ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñu xool ndax ñoom buñ leen yónnee danañu dem wala duñu dem teelee leer. Mourchid Iyane Thiam s'il vous plaît. imam Mourchid Iyane Thiam salaam sant ba ah Diop Diop imam ñu ngi lay ziar Ndiaye la Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye almaami waaw nam toora pour géda alwaar surtout Omar Fouti wu Taal jërëjëf def ñu ngi sant bu baax ne ci jàmm alhamdulilah sant yàlla mbaa yi a ngi ci jàmm alhamdulilah sant sant ah ca sant bu ñu xëyee def entraînement yëngal yaram gi appui avant ah, mënta ñàkk mënta ñàkk sport moo am na solo trop jërëjëf jërëjëf ñu ngi jégul nag si dérangement bu baax déet déet amul benn solo amul benn solo amul benn solo ulemaa yi ñoo ma mhm. am na ONC buy seet sa numéro jamra waaw ma ne ah, kii de sama doom ja fa la ne woon yal na ko yàlla xare àjjana Abdou Latif di nit ku baax waaw waaw dafa am euh, situation bu am te wax dëgg yàlla situation bu am bu ne dañuy xool ñi nga xamante ne bi ñoo gën a mën ci situation boobu dara mm-hmm. waaw ndax kaabu bu exceptionnel lañu am ndax euh, defe naa yaa ngi liir information wala goo koy seetaan ci télé yi waaw sunu mbokk jullit yi nekk Birmanie waaw muy jullit yi fa nekk dañ leen di persécuter maanaam sonal leen lool di leen jàpp di ci rey ay nit leen def jëf ju ñaaw ba tax na ñu sonn daw réfugié ci benn dëkk bu nekk seen wet yëg naa ko yëg naa ko voilà ñu bëggoon nag Sénégal aussi tamit jàpp ci waaw tax na fondation bu ñu woowee seen action bi Bougane Gueye Dany taxawal waaw ñu récolté benn fonds xaalis bu bari bëgg ko dimbale jullit yooyu d'abord la nga xalaat ci loolu initiative boobu ba jëf ju rafet la ndax suñu borom moo ko santaane boo gisee lu la metti te mënoo koo xeex na ko jooy soo amul ronguñ yoo koy jooyee na ko jooy si sa biir xol sa xol bu ko àttanul duggal sa néeg nga muñ soo ko mënul muñ nag noppaale ko rek te da si bàyyi xel te di ko ñaawlu ci sa xel soo amee doole bi ak kattan bi damal àpp jàppale leen soo ko mënee waaw dëgg la ñëpp xam na nag ci commission croissant lunaire bi ñuy set weer waaw waaw ci wàllu jullit ma bëggoon a xam maanaam ñooñu noonu ca Birmanie parce que am na loo xam ne nii yow jaral na la ko pour nga def ko ci comme effort wala lan la jaral daal maam jullit àdduna bi bu nekkee ci jafe-jafe lan la la jaral yow. xanaa rek xanaa rek ñaanal leen ñaanal leen ndax àdduna bi moom léegi léegi nekk fa jullit sax dafa nekk loo xam ne soo ko xasee ba wax rek dugal nañu terrorisme ak yooyu mel noonu dafa ñaaw moo tax dëkk bi léegi dara dara dara dara dara dara leeratul ndax dañoo bëgg tegg yàlla ut beneen yàlla te yàlla moom. mooy yàlla moom moom àddina waaye tubaab yii dañoo bëgg indi seen beneen yàlla boo xam ne nit ñi dañ koy gis ñuy def nu leen neexee di wax lu mu leen neexee di teg lu mu leen neexee te loolu mun munta way benn yàlla am mooy yàlla bu ñu bëggee nag teggi yàlla boobu teg seen yàlla bopp kon ñoom lu leen neex dañuy def man de comme dégg naa sax nga ne sax dangay faral dem entraînement man sama xel gën naa dal pare nga pour dimbali jullit yooyu yow. <laughs> xam nga sama soxna si jolof jolof la. waaw te may xaal pulaar lam toora buur gedda alwaar sëtu Umar Fuuti taal. kër tarixe ba boo ma làmb rek daj ma. cere bokk ci li may sàkku di ko lekk. kattan gaa ngi fi doole baa ngi fi bët yaa ngay leer dara yu macha allah bu dee dem rek dem ñaan gi mun naa dem. Hmm. jëmm jéeg lépp mun naa dem. ndax ay nitu yàlla nañu ñu ngi koy jooylu di ko muñ di ko naqarlu te lu mu laaj nag pare nga pour def ko ci def ko lu amul luñ ci ay jullit nañu de hmm. waaw surtout lool laa bëggoon xam lu mu laaj pare nga pour def ko ci incha allah rabbi buñ ko ci kaw ñu mën ko baax na parce que dañoo gis ne xaalis boobu sax mi ngi toll ci vingt cinq millions waaw te am na yeneen yu ñu war a récolter mais problème bi ñu am mooy Birmanie amul ambassade fii Sénégal amul fi consulat dëgg la dëkk bi mu dendal muy Bangladesh aussi mënuloo fa nekk di yónnee aide humanitaire ñu bëggoon a jël xaalis boobu jox la ko yow nga téye ko sa loxo ñu jël la frais yëpp voyage bi nga dem ba Birmanie wàcc biir Birmanie mais foog nga wàcc fi nga xam ne fa la tension bi nekk mooy fi rebelle yi nekk ak fi nga xam ne fa la jàppante yi amee daal foofu ngay wàcc ak valise u xaalis yi nga xuus nag bu laajee jaar ci biir dex gi ak ci biir ndox mi lépp pour yóbbu xaalis bi pour ñu dund ci en attendant loolu daal vraiment ONG bi doyloo na la ci fondation Sen Action bi doyloo na la ci état du Sénégal doyloo ci ndax yow gis nañ sa engagement ci diine ji incha allahu rabi daal dinañ la lépp lu laaj dinañ la ko jox nag bu laajee ndox wala médicament wala lu mu doon nañu wutal sac au dos boo xam ne lépp si lay nekk nga wàcc ak para séddale affaire yi daal vraiment. dañ ci fas ma ne ñaata nga am yow. man j'ai 32 ans. 32 ans di xale bu xonk tur tur tur tur macha ngay wax ak sa moromu maam bu ma la matul maam mën na laa jur nga ne lémb ak say lex. ah lu ma rek déglu ma. may xas ana fu xale toogee. war a xeexi mag di di dem di xeexali déedéet dem may wax rek man sama xam-xam ñëpp xam nañ ne du ma militaire bu pas xeex du ma militaire du ma douanier da ngay survolé dama ne volé wu ma survolé wu ma man samay bët mu ngi survolé ci asamaan si ndax man sama xam-xam wecciwul lu dul xool weer ak gis weer loolu ma tax a jóg te balaa may tukki gis weer balaa may génn xool weer te weer bi nag dafa dem làqu ndax tam xarit léegi mu ñëw dañ koy waaja a yaa ngi may dégg bul ma waxati yu mel nii kuy wër criminel nag jàpp la bàyyiwul criminel ah, déet dama lay wax duma sa morom soo ma nee woon kat weer bi kañ lay ñëw pour tam xarit moo la cee wax lu leer na mujj tey nga may waxati dem biir mani da nga maa yéen a dee war da nga bañ ñu tam xarit ah, kon yow boo demee duñu tam xarit nu ñuy tam xarite te man rek sama xam-xam màcc si gis weer ak feeñal weer te nga ne leng xale bu ndaw 30 ans sa mor mu bàyyi ngay yebal yoo nga ne toog di ma xaar te nga mën a sir wale nga bëgg maa wale loo ci kaw te man su may bët ci dama ne parent grand parent mère laa yemale cousine parent laa wax soo parent quoi ngay wax dama ko déggatul sax ndax samay nopp neexatul tex bi woon ci man nga indiwaat loo waxati du ma ko dégg en tout cas sa ci diine ji daal ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla te yaa taxaw fii ne jaral na lu nekk. tam xarit paasagul weer bi moom la ñuy séentu. ana bi dama ne la ngay wax dégguma ko de ndax am na wax yoo xam ne day yee sama tëx. Euh, mais kon ñu léegi lan nga gis comme yow comme solution. dem mosquée omarienne yépp waajal waxtu bi. à part nga defaat lan. saa lan. ma ne bu loolu weesoo neexatul nopp yi déggutul dara dara dara dara dara lu dul gis weer kan la weer bi di génn fan lay fanaani fu muy yendu mais quand même boo ngeen gisee weer eh, nopp yi neexatul doo dégg war nga yuxu ci kaw Mourchid Iyane Thiam ma ne ban période nga jàpp ne war nga see mën a dem période bi ma jàpp mooy weer bi dina fanaanee Gambie gont senegal jaal mani ma nga nee ca kaw yaa ngi koy gis see yëkkatil sa bopp bi gune bu ndaw xonk cur 30 ans munoo gis xoolal nee ca kaw. non fii gisuma fi dara fii ay. doo mun a gis dara yow dee rek ngay gis moo taxit dama la fi bàyyi. quand dee aussi. déedéet tam xarit bi laay xaar ak jom. Euh, Imaam Thiam. doo ñu jàppale rek nga yóbbu xaalis bi. nopp yi neexatul. noo tudd. nga ne. ma ne noo tuddu foo ma jëmee. foo jëm. Omar yéen. loo fay def. nga ne ma ne looy def foofu nopp yi neexatul mursid yan yaay baadoolo yàlla nga dee ak di gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show rawatina nag sponsor yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ñoom tamit euh, ñu ngi leen di remercier si seen présence euh, am na solo trop waaye tamit euh, di gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission bi rawatina nag suñu soppe yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew yi ak ci biir réew mi di nuyu tamit bu baax Oustaz Moussa mbay nekk nak ca Bergamo ñu ngi préparé bés bi nga xam ne mooy bésu Thierno Abdourahmane Bari yal na yàlla may egg ci jàmm gërëm tamit bu baax ki nga xam ne nag mooy Euh, ki nga xam ne mooy Serigne euh, Serigne euh, ñu xam mooy Serigne Baba si di doomu Bokar si nekk ci Angleterre ñu ngi koy nuyu baax waaye tamit di am mbégte contentement ci princesse Gamel bi nga xam ne nag moom la ñu teggi kilibam noonu di ko gërëm bu baax moom ngay préparé nag benn piscine party xam naa weekend bi lay doon ci sali le 23 dina fekk nag équipe bu Kouthia ñoom tamit bu leen fàtte ne samedi bii di ñëw dimanche incha allah le 24 ba le 2 octobre ñu gis Mbour. pour nag euh, une semaine boo xam ne décentralisé Kouthia Show euh, di wax tamit euh, samedi bi ci boppam le 23 sargal El Hadj Abou Bilal Mati moo ko organisé incha allah foofu ca Ravin lay ame bu ñu fa jugee nag le lendemain directement ñu ngi dem ci région de Mbour à partir du 24 ba le 2 octobre incha allah bu soobee yàlla bañ ci paree nag. Euh, dugg nag ci biir Afrique bu ñu paree Afrique jaar fi nga xam ne fa ñu war a jaar mais jàppale daal incha allah du yàgg ngeen gis sport bi mu daw ci télévision bi Mati samedi nañu amante moom rendez-vous ajjuma mooy doon suñu invité euh, ci Kouthia Show euh, astafurlah jeudi mooy doon suñu invité ci Kouthia Show pour mu wax ñu programme bi nan lay demee yëpp moom ñu koy gërëm di ko sant bu baax waaye tamit waa Mbour mbuur région de mbuur boo leen dalalee Prince Gamel samedi ci piscine party boobu muy organisé foofu ca Mbour samedi bi dimanche matin boo leen yeewoo suba tey xool leen ñu ñu ngi biir Mbour dinañu def benn caravane dinañ def benn caravane bu mag wane na ñu ngi Mbour exi Mbour quartier 11 novembre kankurang yi yëpp dana am dinañ def suñu ay kankurang personnel équipe bi daal pare nañu incha allah te nag am na équipe télévision bu mag bu ci rax boo xam ne chaîne privée la bu jugee ci extérieur beneen dëkk bu nar a accompagner tournée bi ndax ñoom nee nañ daal am na lu ñu namm waaw euh, télévision bu mag la nag. télévision bu mag boo xam ne dafa ñëw pour def documentaire ci li nga xam ne moom mooy œuvre et l'émission de Kouthia Show ñoom ñoo ñuy gunge pendant une semaine à Mbour de benn télévision bu mag a mag boo xam ne dañ fay ñëw fan yi pour jàpp ci li nga xam ne mooy émission Kouthia Show ils seront là à partir de dimanche minuit ànd ak ñun ba le deux bu sobe yàlla ñu daaree dugg Mbour tas ko kon princesse Gamel je pense qu'on se rencontrera là-bas incha bi mbokk yi ñuy nuyu tamit village bu ñaan Koutiala Koutiala benn village bu nekk ca Mali la ñu ngi leen di nuyu le chef de village il comprend pas le wolof mais ils euh, sont vraiment contents de Kouthia parce que y a Kouthia et Kouthiala le village s'appelle Kouthiala merci le chef de village les sorciers qui sont là-bas les grands marabouts ils sont tous contents de nous merci merci donc vraiment gars yi dañuy dem ci débat bi nga xam ne dëkku aada koli ndar ndar yëngu na de dëkku maître Fatima Fall boobu yëngu na de neew man xam na loolu la aada koli yëg moo tax mu takk ay bagages am ñëw xam naa ne am na luy waaj a xew daal dañuy dem seeti Horatio jàkkaarloog ñaar cadre yu mag Madické Niang ak ki nga xam ne mooy Mansour Faye mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan seen télévision Futur Média ñu leen dalalaat tey jii ci seen débat du jour bi nga xam ne dañuy faral di ci waxtaan ànd ci ak ay personnalité politique économique ay personnalité religieuse ak ay personnalité sportive tey nag may am ci ñaari invité ci sama ndeyjoor may dalal maître Madické Niang nekk ci membre. honorable député à l'Assemblée nationale nekk membre du parti démocratique sénégalais. waaw maître Madické Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la sant di la wax ne sama wàccaay mënoo ko wàññi. ndax avocat la honorable député la à l'Assemblée nationale. taalibe Serigne Touba yokk sama yaakaar ci kër ma Massamba Serigne Massamba Mbacké yàlla yàlla yokk leeram bàyyi ñun njabootam ñun ñëpp ñu ngi bég di gërëm tamit le président de la république. ki nga xam ne moo fi nekkoon président de ba tey nekk sama président de le président Ablaye waat merci beaucoup mbokk yi ñu daal dem ci ki nga xam ne mooy suñu deuxième invité monsieur Mansour Faye nekk maire Saint-Louis nekk membre aussi du euh, APR ñu ngi lay nuyu monsieur Mansour Faye. waaw euh, ku baax maa ngi lay fay. Euh, di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal jàmm ñu ñaan ndar yàlla ci yàlla di wis ndox mu sedd yàlla ci yàlla def jàmm ak bépp moo xam ni yaa ngi fii ci àddina di ñaanal yàlla suñu président Macky Sall yàlla na yàlla yàggal taxawaayam. li bëgg-bëgg bi mu am ci réew mi yàlla na ko yàlla mottali ci barke yonent bi mbokk yaakaar naa ne dañuy campé décor bi directement dañuy dem ci li nga xam ne mooy suñu première question euh, maître euh, monsieur Mansour Faye maire Saint-Louis dañu gis ne jamono yi ndar coow li bari na parce que gis nañ ne statut fédéral bu dafa daanu mais coow li yëpp ñu ngi ci statut bi ba xam dañ koy monté waat wala duñ ko monté yow en tant que maire ndar lan moo ci nekk sa kàddu waaw foofu li rek mooy euh, statut bi jiitu na suñu judd te da nga ko fay dindi wala da nga fay teg foog ñun ñëpp ñu bokk toog waxtaan ñu xam nan la ñuy def mais suñu sañoon dañ ko fay teg ndax ñu teg ko fa wala ñu ko fa bañ ñàkk fa bañ teg wàññiwuñu dara mais lan moo tax mën loo jël ST ba tegaat ko fa mu nekkoon lan la ñu ci ndar. wallaay xaar génne wuñu kenn génne wuñu kenn. am na ci loo xam ne boo ko bëggee indil compliqué yaa non yaa koy compliqué mais loolu wul dara ci li mu nekk ndar wàññiwul dara. ba yegg ca ba yegg ca euh, dëgg la dëgg la monsieur Mansour Faye wax nga sa position mooy lan statut bi li nga gis mooy ñu tegaat ko fa maître Madické Niang lan moo tax ngeen bëgg statut boobu ñu dindi ko fa. ñii nag dañoo gëmul yàlla parce que ñaari rakk yi nga xam ne mooy ñaari rakk yi mag yi nga xam ne ndar ñëpp xam nañ ne bu ñëwee ndar am nañu ñaari rakk man ñëpp xam nañ ne ci ñaari rakk yi du ma ko mbëboo de waaye bañ ko commencé ba tey. sama loxo jugu ci ci ci comité d'organisation bi waaye léegi nañ waxtaan te dëgg te yàlla tax ñaari fan fédère bi ne mbapp ci suuf ñu ne dañuy yëkkatiwaat fédère bu tegaat ko ci kaw ñun li leen di xamal mooy ñaar yow Mansour Faye moomoo ndar say mbokk moomu nuñ ndar da ngay judd fekk waa ndar nekk ndar li mun a am te leer mooy bés boo leen tegaatee feder bi ci kaw bu keroogee di ngeen gis loo xam ne doo leen xool doo leen xam foo koy jo jooyee lu leer laa leen wax nag. Euh, sëñ bi. na ko fexe. sëñ bi euh, euh, nga baal ma bëgguma sax nga ma lay laaj. xale lu ne bëgguma quoi. j'ai j'ai beaucoup respect de toi. waaw waaw laa ci laa ci dugal bu mu dugal esthétique bi fu mu àggul no bu jël esthétique bi duggul ko ci cadre boo xam ne àggu fa fii ku ci nekk am na loo gëm. ku ci nekk am ci looy wékku mais loolu il a rien à voir ak stade bi ñu tegal ko place am mais lu daanu duñ ko yëkkati tegal ko place am. def leen ko ngeen xool. am déet man de loolu laa xaar mais buñ ci dugal loo xam ne waruñu ko ci dugal ba di ci indi ay wiiri wi déedéet stade la bu daanu nekkoon fa daanu ñu war a jëlaat ko yëkkatiwaat ko tegal ko place am. un point c'est tout. mais est-ce que sóoraale nga population Ndar ñoom lan lañu bëgg exactement. Euh, est-ce que ñoom bëgg nañu tegaat ko fa wala bëgguñu ko fa. Euh, euh, maître waaw sama liggéey man faruma fenn nag sama liggéey rek laay ah, def. dama lay réel tey waaw nan nan ma bëgg mu leer rek waaw yaakaar naa ma am fu ma féet aussi. dama lay wax ni population Ndar ñu ci bëri dañoo judd fekk fa STT ba mais STT bi kañ la woon mais kañ la woon. yàgg na mais dañoo judd fekk ko fa lan la ñu jeuné ñun waa Ndar. lan la ñu jeuné maa su ragalal yàlla. ñun lan la ñu jeuné. maa su ragalal yàlla ku ci nekk ngëm ngëm ngëm ci nit ki la nekk nit ki yaa am sa taqwa bopp li ngay gëm ak leneen sa diamétralement opposé nañ jël statut ba ko fa ah. maître ma dikkee yow ma yaakaar ne débat politique bi am na feneen fu mu nekk furul ci ay statut pour man war naa a nekk ci dañuy waxtaan te yàlla mbubu politique mbubu taalibe laa sol hmm. mbubu taalibe laa sol feder bu mooy kañ kuy feder ba toroxal sëriñu sëriñu ah, sëriñu diine l'islam sonal suñu sëriñ si suul lislaam feder bu door ay nit toroxal ay sëriñ suufeel diine gi feder bu bëggul woon kenn nodd diggante deux heures ak quatorze ak ak ak takkusaan julli dëgg diggante une heure une heure et ngay julli waaye quatorze heures da doon taxaw naan non il faut pas me déranger parce que fenêtre am ci boppam ak mosquée bi nga xam ne wàllu yu yàlla yi fa lañ doon jullee ñoo jàkkaarloo waaye kuy feder ba ak luy feder ba ñun waxuñu nañ fa jël kenn teg ko fotom waaye Faidherbe bi moom du yëg ca kaw maa la wax lii euh, ba ñu man ba xeex ci laa wax euh, ak ku koy défendre boo ci xeexee boo ci xeexee monsieur Faye monsieur Faye s'il vous plaît boo ci xeexee monsieur Faye s'il vous seetaan su ngeen bëggee ñu xam ne ñoo ñuy a jëriñu ci waxtaan bi il faut ngeen poser le débat ñu waxtaan ci xel euh, euh, te bañ waxtaan ci xër-xër mais monsieur Faye s'il vous plaît question bi lay posé mooy munul man maay posé question moom waaw xaaral di ci ñëw mais dama ne est-ce que yaakaaroon ne maa Faye ku ko wax xam ne turu jullit la est-ce que yaakaaru ne war nga ko mën a fekk du mbiru tarixam mbiru diine la est-ce que en tant que jullit sa diine ak sa xol may na la jël feder bu di ko ajaat ci kaw est-ce que sa may na la ko sama diine waaw sama diine bokkul ak dara ak feder ba waaw mais bu fa yéegee yaa fa yéegal quand même parce que yaa autorité bi nag danga may may danga may naa continuer. allez-y s'il vous plaît euh, euh, c'est bon. Euh, monsieur Niang bàyyil bàyyil tey ñi ngay rey. ma may ma wax wala mënoo ma may ma wax. non tey ñi muy rey laa ko wax mu bàyyi ko. ma na mais mi dugg ma may ma wax xanaa doo ndar ndar. ñaareel ba àndal ak dal. ñaareel ba ñaareel ba. STT boobu bu ñu ko fa tegee mais imagine xale yu juddu nga xam ne xamuñu fédéral ba yoon la ñu xam fédéral ba xam ne kon mooy sëñ bi kon mooy taxawaayu sëñ bi xam nga ndax lan ci nit ki mën nga wax une minute te doo fëgg sama. sëñ ban fële sëñ ban waaw déglu ma dama lay ñaan dama ne. ban sëriñ la ban nga cee jëlee xam jaar jaaru sëñ bi kan la. ban sëriñ ak ban daraja la amoon. Mhm. ak ban gëm-gëm moo nekkoon ci moom. ban sëriñ xam nga tey ay mu jabootam ñuy suq tey di raam. di raam di ñëw ci ñoom. mais lan la la wàññi mais da ngay bàyyi sama loxo ma wax. waaw mais fi ngay fëgg nii laa sama loxo ma wax. allez-y boo la bu yox moom nga téel loxoom. allez-y euh, yaa ngi dégg mhm. kon day jaadu wala muy yoon tey ñoon ñoonoon tey ñu ko di ko xeex démb ak bërki démb tey ay njabootam ñoo wëlbatiku di sukk di raam di jégalu di tudd di dellu salaam dëgg la loolu aussi monsieur kenn du ko sànni lu wax am solo la wax. ah waaw sëriñ bi liggéey na fi loo xamante ne bii vraiment ay tubaab dañuy jóge bitim réew ñëw di tuub si est ce que bu statut boobu fa nekk rek est ce que mënuñu ko faa bàyyi parce que dafa mel loolu rek moo fa def ci symbole tubaab yéen a tudd sëriñ sëriñ. dëgg la li ma te damay wax rek te yàlla tax damay wax li ma mën a daggal mooy wax ci ñu gàttal ko ci gàttal xam nga lan la maa ngi xaar ñu teg ba man loolu laa xaar ba ñu ma ci dara bu koy teg Faidherbe di gis loolu musta gis yow. nga ma ne koy teg Faidherbe di gis loo musta gis. mbokk yi seetaan yaakaar naa ne débat bi du ma ko tëj sans pour la pardon euh, euh, euh, monsieur monsieur léegi li may tëjee mooy yéen ñiy seetaan yéen a ngi xool maa ngi xool seet nañ débat télé bu am day am coow am jàppante ba à la fin du mujj fenn. cette fois ci ci plateau. yow nee nga bu yow nee bu ko tegee. bu ko tegee ma teg ko moom yow nee nga di nga ko teg. léegi nag man yéen ñëpp mbokk yi salaam vous êtes en direct. Saliou laa wax parce que Serigne Saliou boo koy teg ma koy teg bàyyi. mbokk yi ñu jox dig daje prochainement